moo tax bu fi nekkee ñu verser Boubacar Konaté awow ñëwal ñëwal waxtaanal ñu awow jërëjëfut Serigne Saliou Serigne Béthio jaamu Serigne Saliou yàlla fi yàgg lool te wér waaye maa ngi ñaan ñëpp wax ko son stedd si ñu ngi siyaare bu baax di ñaanal sëñ Béthio mu yàgg fi lool te wér di siyaare sunu ndey ju tedd ji soxna Adja saaliw ak mboolem njaboot sëñ Béthio gépp di santaat bu baax xam naa ni day eh, ndigal moom ab taalu bi amul lu may di ko jëfe ndax ni nga ko waxe yéen lu ngeen nu digal nu def ko waaye kàddu yi day xam naa ni kàddu yi fi jot a jaar te mu mate ko sëkk dale ko ci kàddu jëwriñ universel sëriñ Saliou Samb yi ba ci sëñ daam njegéen mi nga xam ne moo mujj daaneel ñu koy nuyu di ko siyaare ak mbooleem njabootu sëñ Saliou gépp ak mbooleem këri diine yi fi teew yépp loola day da ko mate sëkk nun daal fii mu ne sunuy kàddu moom ay kaddu yu sant rek la di santaat sëñ Béthio tey ñaan mu yàgg fi te wér amiin ndax bis lépp daa yi ñun dañuy sant sëriñ bi de bis bi de bu ñu sañoon bis bi bu ñu sañoon day dem ba déwén nii lay wéyee ba déwén ngi dañoo xam ne ñun lu ñu am bés bee ñu ko may te borom buñ ne bis bi mooy borom bis bi kon ñi bëgg a ñibbi mën nañoo dem ndànk te ñu may ñu rek ñu yeggali cant gi ñuy sant di santale Serigne Béthio e Serigne Saliou. jërëjëf mu mel ni li ci des lépp ay kàddu yu sant rek la ci tawféex gi nu Serigne Saliou tawféexal ba bis bi demee nii mu demee ndax kàddu yi fi jaar yëpp da koo firndeel wane ko ndax fii mu ne màggug sëriñ bi moom defe naa képp ku fi teew te teewlu màggug Serigne Saliou moom fi mu ne xam nga ca loolu la doy sëkk loo xam ni. bis boo ko jiimee jariñoo rek di nga jariñoo àddina ak àllaaxira ndax euh, doomu aadama yëpp yàlla da leen a sàkk ngir ñu jàmm ko rek te jariñoo wa ma xalaxtul jinna wal insa illa liya'buduni te jëmmi njariñ moom ku ne xam na ni ci yàlla rek lay bawoo an naf wa durru min arrahmani la Sëñ Tuubaa wax alxuraan wax ni it wa ma min dabbatin fil ardi illa ala llahi rizquha waxaat ne wama bikum min ni'matin fa min allahi summa ida massakum durru fa ilayhi taj'arun mu mel ni nag mbooleem kaddu yi fi jaar yëpp boo ko dégloo li muy wane rek mooy sëriñ Saliou amul morom kooki amul morom nag nga xam ni kenn ci ñun fi mu ne ku teewlu rek yëg nga ni ndekete kooki daal bu la tànnul woon mënoo tànn sa bopp boole sa bopp ci aw ñoñam ndax nee na sëñ Bethio ñi la topp ñëpp sama jubloo comme que ñun nag ñoo am waa ji am ki mat ni ñuy fexee def mooy doon gaañi ndax ku am waa ji daal ni ngay fexee def mooy doon bokk ci gaañ yi bokk ci gaañ yi nag mooy fexe doon taalibe bu ko mate te loolu moom laa jàng ci sa jeexitalu kàddu mooy lan mooy lu takkuwaat laxasaayuwaat suubuwaat te xam ni nun daal Serigne Saliou nu tànnal te lii mu nu tànnal nag ne nu nan ko def muy suñu yitte moo gën ci ñun àddina te moo gën ci ñun àllaaxira kon li fi des mooy gën a góorgóorluwaat takkuwaat te xam ne liggéey bi sëgg la tebeñu siggi nuur la tebeñu nuqi sëñ tubaa nee na fa xum fii hawa u wa tabbih li muraadihi wa dax kullama min qablu kunta tusaanihu mooy daal lépp loo jàppoon ni moo lay may yàlla ba ko jàppal sëriñ bi te ngoy ko del dab mbégam foo toll te lum la digal na nga na nga taxaw temm ci jéem koo jëfe nun nag tànnaloonu suñu bopp sëñ Saaliw mi xam moo nu tànnal te jëmmam la nu tànnal bi mu nuy tànnal jëmmam it dëggi-dëggi jëmmam la nu tànnal moo tax mu ne ñu yéen ñi ànd ak sëñ Béthio ñu ko waaw mu ne yéen a ngi sama biir seen dara génn génnuma kon sëñ Béthio mii lépp loo xam ne su nu ko defee gën a dab mbégam loolu yi dañ cee war a gën a taxaw nuy santaat nag te di la ndokkeel bu baax ndokkeel la nag mooy ndokkeel sëriñ bi ci taxawaay bi nii mu demee te kenn ku ne wax ko ndax sëriñ bi day wutewul waaye jëmmam ja ci saayir day mel na ni gisuñu ko waaye sa taxawaay bii nga ànd kook sa mag yu tedd yi ak sa raq yi ak mboolem jabootu sëñ Béthio gi na nga yëg ni kat seddal na xolu cantaakoon yëpp suñu xol sedd na ndax ñii kat ku leen mën a dajale dërëm di fekki dërëm dërëm di fekki dërëm ba mat ay milliards yu kenn xamul nu mu toll sëriñ bi teg ko sa loxo bii nga dugg ci avion yi dem ba maaleek li ko wër rungu nag yi taxaw ci gétt gi nga xam ni ku la xool doo xam kii kii taxaw góor la ma jigéen la di wax ak pël yi rungu nag yëpp dugal leen ci oto yi wàcc leen ndakaaru gii wàcc leen madinatu salaam gii ñun cantakoon yi nu bernde woo ko mu tas ci àddina fii ba Tuuba ak li ko te sëriñ bi di xool lépp lépp na fi xam na ni sëñ Béthio ngi fi te wutewul loola nag daa seral suñu xol xel yépp dalaat na xol yëpp sedd na loola nag dañ la ci ndokkeel bu baax muy mbégum cantaakon yëpp nag loolu nag daa juraat ñu takkuwaat laxasaa yu jëm màggal lii rek ay kàddu yi jërëjëf waaw yow maa lay bégal turu cantaakoo ni yëpp waaw mbokk yi yaa ngeen jëf waaw li wax rekk moom day mbooleem cantaakoon yi ndax kuréel bi benn la boroom kër gi kenn la te mooy sëriñ Béthio kon ñoo ngi santaat bu baax ci ànd gi ñu àndee liggéeyam bi ba lépp rafet